délégation bi am na solo lool Bachirou. waaw ndeysaan. mais bi deser ban yax la yor ni yaxulu yaxulu mu doon. yax wi yaxu lan la Bachirou. ah yax bi day war nañu wax ban yax la. Ah, Baba Diaw a ngi ne taxaw cam production. xale bi moo tëgg soxu moo tëggul soxu gàmmu gee bis bu rëy ba. mbañi keere sa ko balde. gàncax production ak ñi ma gis mu laalaat ko mu neex. ndeysaan kooku mooy Baba ndeysaan man dama koo bëgg rek yàlla tax. borom la trois ba ak kii bi yàlla ba ma ko upp wantaay yii nga xamante ne moom la ngin yor xaw ma wantaay lu mu doon mais yax bee ma yaxu lu mu fas garde ak pied normal la ngim yóbbee teg pied gauche Buldozer teg pied droite Buldozer moo ngemb ngemb bu daalaali moo ñu woon ginnaaw nii tuuti moom Buldozer mooy ngembum ci siran ngembu Ama Baldé bi la ngembo ngin bu yoof ak ak Buldozer ndeysaan xale bi yëmbal la dëkk moom Buldozer ngin bi yoof jugee yëmbal jugee jugee jugee yoof boo leen jaxasoo war na mën a neex combat wu xale la xam ngin bu yoof ay mbaru tefes sañu ñoom mbaru yoof yi Buldozer ak ngin bu yoof ñu ñaar xale ñuy calcul ngin bi yoof ak bi na ba léegi ñim ñaar ngin bi yoof ak bi na ba siir ñim ñaar buñ jàppante bu neex de dañu war a tànn action jàppante ay conseil la ñu bëree nekk am na la wax. Ada baa ngi wax ak ñoom ñaar. wax ak ñoom jot na arbitre sifflé na Bachir. Buldozer mu ngi dox ci kawam. ngin bu yoof ak Buldozer. waa ngin bi yoof dafa war a ngin. dafa war a foora ngi inde mais Buldozer sax nee na ma combat bi day gaaw ma ne ko loo indi ma ne su ma bëree ko su bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko mais fi mu ne nii kenn xe kenn xeexul kenn Ngin bi Yoff ak Buldozer ñoom ñaar wuri wa dem na kenn war man dem nga taali Basiru bakk war mbaam coolu si ëttub teen bi gaay amul baag la. mais ku ci am baag doo wax patt ngay def ak moom ndeysaan eh waaw ngir bi Yoff Dior cokkaas na Buldozer doo ci koom xeex bi commencé na waa moo koy sottil ngir bi Yoff jàpp na Buldozer jàppante nañ ñoom ñaar ngir bi Yoff ak Buldozer Buldozer la nar noonu lan la nar def noonu Buldozer fi mu jàpp baax na ràcc na Guine bi Yoff mu ngi recherche fu mu mën a jàpp <laughs> Buldozer dafa ràcc waaw Guine bi Yoff amul ngembu amul ngembu eh bu ko bàyyi sa bu sa bopp de bu ko bu ko bàyyi sa bopp eh. bi eh Guine bi Yoff ak Buldozer ñoom ñaar. ngin bu yof li mu bëgg a ngin bu yof am na ngemb am njool la bu mu sigg yéen a sigg bu ko bi deseer takkee li mu bëgg mun na koo am mais bi deseer tamit na moytu mbot moomu am njool kenn ko mbatee noonu da ngay surux parce que bu bàyyi loxo yaay jiitu ngin bu yof ak bi deseer ñaar ngin bu yof am na ngemb bi deseer am na ngemb. laa ilaha illallah Buldozer dugg na Buldozer dugg na Buldozer dugg na Buldozer dugg na oh fa mu jàpp baaxul bàyyi na Buldozer fa mu Buldozer bul forte action boobu mais ngir mu yóbbu fa xeexam dara. ngin bi yeesu fa mu niroog mbë tànk day mbot day mel ne kuy raj bi si suuf jël na ko ngin bi yëpp xëcc na ko kal na ko ñu ngi xeex ar bi atte na combat bi na Basiru ñu ngi bëre déedéet déedéet déedéet ah déedéet déedéet déedéet dañoo xeex ba génn saako déedéet avertissement bi ma. Oh, bi d'accord ma Basirou d'accord ma dañoo xeex ba génn yi d'accord ma avertissement bi waaw des fois dañuy yàq combat xale yi des fois ñu ngi bëre ñaari ponkal lañ dëgg la te fa am waaw. ngin bu yoof ak Bulldozer ñoom ñaar combat bi neex na ay saa nattante nañ ñoom ñaar ku ne mos a sama morom xam nga sama morom li muy saf waaw parce que des fois dañuy peese Jibi Ndiaye ndeysaan def na journée bu neex tey le treize fii si stade Iba Mar Diop stade bu mën na mu Bachirou gëj lool mais stade bu neex tege làmb c'est que li bu amee lamb day dox. promoteur yi ñu ñemee Papa tëgg combat yi waaw ndes ngeen bu yof ak Bulldozer ngeen bu yof mu ngi ŋang rek xaw lu muy ŋang xaw ma Pathé da fatt xaw ma bu yof ak ba ngeen bu yof ak la jël na la Bulldozer ak ngeen bu yof la génn ci génn ca ngin bi yof seer ñoom ñaar xale yaa ngi bëre Basiru ngin bi ngin bi yof seer eh ñu ngi xeex ñaar ngin <laughs> bi yof ak bi seer ñoom ñaar <laughs> ay waay mbay ay lamb ni la war a <laughs> ay waay bëgg dinaa afalkat yi kontaan nañu waxkat yi kontaan nañu filmkat yi kontaan nañu lamb nii mel lii daf ñuy sawarloo ñun parce que lamb bu amee suukar am kaani rek am poobar rek day neex ngin bu yoof ak bulldozer bulldozer dafa mobiliser tey nag dafa mobiliser waaw waaw waaw ndeysaan Buldozer Buldozer ak ngin bu yóbbal léegi ñoom ñaar ndam ndamu ndam di kurme kurba ñaa ngi daal mu ngi mel ne mbàccum dugub de ndeysaan ci Bulldozer ndur na ko moom lamb ji de waaw eh. may dama bañ mu bëre ban am na confiance dëgg la ak seen confiance bu ndeysaan ngin bi yof ak Bulldozer booy bi di Buldozer dafa mën a bëre ndaxee de mën na bëre mu ngi wane boppam ndeysaan Buldozer du naaju nekk sa de ngir am na combat am na combat waaw am na combat Basiru du waa wasaare lamb yéen koy wasaare muy wasaaroo ci réew mi. fépp ci àdduna bi liggéey bi rafet na Basiru seen liggéey rafet na am na eh, waaw tagg na la bi laser bi laser bi laser tànn la waaw tànn ko jëli bu rëy <laughs> waaw bi laser bëri na bëri na bëri bu daan na bëri waaye ndaanaan la ah waaw Bine de Serre ñëw na sànq nee naa la booy bi ji xale doomu yëmbal la xoolal ma général xoolal ma général xoolal ma général waaye yëmbal la Papa Sow numéro doo ko indi Bine de Serre la xale bi bàyyi ko xel bàyyi leen ko xel Fatima. Malika di gërëm bu baax Général Malika gi yëpp moom nga entraînement yi mayu ma dara di sant sama mafia bi waaw gi ñu ngi nekk si ñun gi nga xamante ne moo nekk si ñun parce que Seydina Mohamed feeñewuñ ci dara gir nga feeñewuñ ci dara waaw mais tey bisu joxe sa bakkan nga tey ñëpp a ñëw sama a parcelle ñoom ngam tooro ñoom andi Moussa Fall am di ngay ñoom ñoom ñoom gaay ñoom Bamba waaw bi desee rek am estaf di xaar ku nga am bu boogee man xale rek tey supporter di réclamer man man maa ngi maa ngi bàyyi bàyyi ma kenn.